que sénégalais yi voté waatuñu le 24 février bii le 25 février 2024 man maay chef de l'opposition xam nga nit ñi nit ñi Sénégal malheureusement dañu dañu bëri caaxaan dañu bëri caaxaan dañ dul wax dëkk je suis le chef de l'opposition lan moo def lan moo tax ñu nangul Macky Sall puisqu'il a eu pour cent des suffrages que mooy président de la République bala le 25 février ñëpp di xaar nangu ko man maay chef de l'opposition bi tànn déglu leen ma rek man maay chef de l'opposition bi tànn situation réewam taxaw mu tànn ne loxo bii ma président tàllal pour sauver réew mi dama koy nangu en tant que chef de l'opposition parce que yeneen chef de l'opposition ci yeneen réew am na leneen lu ñu tànn dañoo tànn ok Covid baa ngi ñëw jafe-jafe yi dana yokku nañu daaneel nguur gi lu ca mujj kan moo daaneel euh, IBK au Mali kan moo jël pouvoir bi kan moo daaneel alfakonde ku jël pouvoir bi Burkina Faso voilà opposition société civile tàng marche xeex toj et cetera nguur ga daanu armée ñëw ne coppet luñ jaman ña ngay taxawaalu ci Afrique di wut fu ñu làqu puisque armee ba yemul ci loolu daf na leen yéen ñëpp dama leen di jàpp mais loolu ngeen bëggoon moo am Sénégal jamais de la vie jamais loolu question responsabilité la mën nga sa xel gàtt nga ne d'accord affaire bi bu ñëwee jeunes yi dinañ gën a mer ma xamb leen jëñax leen ci kaw Macky ñu daaneel ko dem lakk palais dem toj fi et cetera et cetera et alors nga defe ni yow da ngay mucc c'est idiot de penser ça c'est complètement idiot de le penser Merci. voilà donc j'ai choisi mais je suis le chef de l'opposition jusqu'à jusqu'à ce que le peuple redistribue ses suffrages Pourquoi ce serait valable pour le président de la République et pas pour moi? Les gens disent ouais, il n'est plus le je suis le chef des <laughs>